ma dalal suñu xel yi avant ñuy eggali. corona bi euh, daf daf ñu bëgg a yóbbu bala mu ñëw yóbbu dinañ lekk ba suur waaw. <laughs> dëgër xeex ak moom <laughs> waaw kay. <laughs> mu ngi noonu bisu comme ni ñu ko waxee woon sànq rek tey euh, cake au coco laa leen andil euh, déjà nag commencé woon nañ li nga xamante ne ni mooy préparation plat du jour tey bi commencé nañu déjà gis nga coco bi rek dañu ko jël. daal di def sucre moom ñu dagg ko en julienne euh, fine tranche rek ñu ko def ay fine lamelle la ñu ko def daal di koy teg ci li nga xamante ne ni mooy suñu benn poêle bàyyi ko ci nag ba mu caraméliser gannaaw bi mu caraméliser nag ci la ñu jël rek euh, benn euh, moitié li nga xamante ne mooy pamplemousse daal di ko ci arrosé pour am benn goût boo xamante ne ni day ànd coco bi ak pamplemousse bi ak sucre cristallisé bi nga xamante ne ni moom lañ ci def def nañ ci tamit tuuti muscade pour gën a relever nag li nga xamante ne ni mooy goût bi fi ne ni nag dama jëlaat beneen moitié bi daal di ko ciy pressé bàyyi ko ci nag moom mu ànd àndandoo ñorande ba ci ba ci kanam <laughs> non petit nag dafa mën a garaaw garaawlu <laughs> mu ngi noonu déjà nag bi ñu jëlee coco bi daal di ci arrosé li nga xamante ne ni mooy beneen moitié pamplemousse bi dañu ko bàyyi noonu nag mu ànd ak sucre bi daal di caraméliser gis nga ni am na couleur ba pare coco bi boo koy euh, nii rek mën nga ko def ci sa benn assiette bàyyi noonu euh, bu ngoonee boo toogee rek di jël nànk di grignoter mais ñun nag tey dañu ko defar pour def ko ci cake bi nga xamante ne moom lañ leen proposé lii nag soo xoolee fii dañu jël 100 euh, de sucre ak 4 jaune d'œuf moom la ñu jël daal di koy def ci suñu benn bool jël nag nag suñu benn euh, cuillère en bois di ko travailler ba am euh, aspect bi gis nga ni nag ñu am benn genre mousse fi ne nii li may def nag mooy ñëw jël rek euh, ñaari sachet levure chimique daal di ci sotti buñ ci sottee levure bi nag dañuy ñëw rek daal di yeggali nag li nga xamante ne ni mooy mélange bi gis nga ni dañu koy mélanger bu baax ba nga xamante ne levure bi du am benn grumeau bu ñu ko euh, ci defee li nga xamante ne ni mooy ingrédients yi nga xam ne moom lañ ciy ñëw def ci kanam ñu rappeler juste 4 euh, jaune d'œuf ak 100 grammes de sucre moom lañ jël daal di koy fouetté ni boo amee nag sa kër fouillé mën nga ko jël au pur des cas mën nga jël benn cuillère en bois bi comme man li ma def ni daal di koy def ci benn bool rek mélanger euh, ba mu baax gis nga suñu defee ni nag ba pare yeneen 4 blancs d'œufs yi moom na 4 blancs d'œufs yi dama ko préparé woon moom rek laay jël daal di sotti mu fekk si euh, li nga xamante ne ni mooy levure bi ak sucre bi ak li nga xamante ne nii mooy euh, jaune d'œuf bi ñu travaillé ba am benn euh, mousse déjà naka bu ñu defee ni gis nga soo defee rek day commencé di bàyyi voilà gis nga ni levure jaune de levure sucre jaune d'œuf ak blanc bi à part moom la ñu jël daal di koy travaillé ni gis nga nag ñu am benn crème voilà gis nga nag suñu defee nag ba am li mën nañu ñëw nag daal di jël suñu lait concentré non sucré daal di ko ci euh, rajouter voilà gis nga nii rek ñu daal di ko ci euh, rajouter fekk nag nag euh, préchauffé préchauffé nga sa four à cent 180 degrés gis nga suñu defee nii nag ba pare lii nag lait concentré non sucré 4 euh, œufs 2 euh, sachets de levure ak 100 grammes de sucre moom lañ utiliser fii suñu defee noonu nag ba pare dañuy ñëw nag jël suñu luus daal di sotti benn daal di def deux ñu daal di mélanger xool lan la ñuy jox bu fekkee jar na ñuy rajouter ñu rajouter mais sinon rek euh, deux luus yi dina baax gis nga nii rek ñu continuer di mélanger mélange ba nga xamante ne ni farine bi dina ànd nag ak li nga xamante ne ni mooy euh, nen bi les concentrés non sucrés bi ak euh, levure bi ñu rappeler aussi que ni nen euh, jaune d'œuf bi ñu koy baat dañu ci defoon rek benn pincée de sel nga xamante ne moom tamit dafay gën a génnee li nga xamante ne nii mooy guuwu keek bi nga xamante ne nii moom lañ leen proposé tey déjà nag tamit gis nga ni koko bi mën nañu ko fay fee nag am nañ fa tamit li nga xam ne mooy beurre beurre fondu dañu jël rek tamit tuuti beurre daal di koy def ci poêle bi bàyyi ko nag ba mu fond bi mu fondree rek ci kanam su ma defee mélange bi ba pare dama koy ñëw récupérer sotti ko ci moom nag mooy waral du kole ba pare intérieur bi dina gën a nooy bu baax a baax voilà gis nga nii rek li ñuy def rek mooy daal di ñëw jël beurre bi daal di sotti et on mélange gis nga bu ñu sottee beurre bi nag ba pare mën nañu ñëw daal di sotti li nga xamante ne mooy moitié appareil bi ci li nga xamante ne nii mooy plaque bi nga xamante ne ni moom la ñu euh, def au four soo xoolee nag tey man damay jël nag euh, benn papier de mooy papier sulfurisé bi moom laay jiital nag ci li nga xamante ne ni mooy suñu plaque bi dem au four gis nga bool bi lañuy jël daal di teg jël papier bi daal di koy teg suñu tegee noonu papier bi nag dañuy ñëw daal di jël rek euh, moitié euh, creme bi daadi ko ciy sotti mën nañu ñëw nag tamit jël li nga xamante ne nii mooy coco bi daal ci sotti voilà. gis nga nii nag coco bi soo xoolee dañu ko def nag ba mu caraméliser gis nga caramel bi dama koy garder nag ci kanam caramel bi ma am ci fond wu bi dama koy garder ba ci kanam ba nga xamante ne nii nag su cake bi génne mën nañ ko arroser ci kaw dina gën a relever goût bi te dina ko jox tamit euh, couleur gis nga nii rek dañuy sotti rek restant wu appareil bi voilà gis nga nii rek ñu daal di ci sotti lépp. gis nga buñ ko ci sottee naka ba pare dañuy rek jël suñu kii plaque daal koy def ni suñu bool bi nga xamante ne ni moo jëm au four ba nga xamante ne ni lépp couvrir na euh, coco bi nga xamante ne moom lañ am gis nga quelque rek la ñu bàyyi muy feeñ ci kaw pour bu duggee au four de préférence nag da ngay préchauffer sa four à 180 degrés boo ko préchauffer nag bu moment bi ngay dugal mën nga ko wàññi mu jëm ba 130 euh, wala ba 150 nga xam ne ci suuf ngay taal bàyyi ba nga xamante ne ni cake bi commencé na ñor nga daal di taal ci kaw mu doore bisu nag euh, li may def rek mooy ñëw jël cake bi daal di koy def ci four bi 20 minutes mu daal di ñor ci kanam tuuti nag ma génne ko ñu daal di jàll nag ci li nga xamante ne mooy dégustation plat du jour tey bi Bijou Ndiaye. Sophie ñoo ngi xaar keek yi ñor ñee ngi selfie ñee ngi ci jims booy togg lu ne dinañ ci dugg fi mu toll nii. waaye yéen tegal tegal sa téléphone.